asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaamualeykum waa Sénégal ak doom yi Sénégal fépp fi ngeen manti nekk ci àddina bi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziara te di leen balaaq di ko sàkku ci kenn ku ne ci yéen di ñaan suñu borom subhanahu wa mu defal leen jàmm tey la mardi 13 décembre 2022 waxtu wi may wax ak yéen euh, 23 heures 45 jot na ci ndakaaru ak li ko wër mbokk yi exercice la boo xam ne euh, waroon nañ ko ak yéen saa yu euh, réew mi am fu mu toll ci ay jaxaso ñu génn xamal leen yenn information yoo xam ne taataan nañ ko di bëgg lépp lu ñu leen di jox mu doon seen njariñ parce que bëgg nañu mu doon xibaar yu wér te wóor sunu waxee loolu ba pare. Sénégal yëpp ñu ngi doon toog di xaar ñi nga xam ne mooy témoin yi nga xam ne kii di Ousmane Sonko désigné na leen bëggoon ñu déglu leen gannaaw bi nga xam ne déglu nañu képp koo xam ne ah, gone gi di aji saar waxoon na bëggoon na ñu déglu ko comme ay témoin am tey jii ki nga xam ne moo ci desoon mooy témoin yi nga xam ne Ousmane Sonko moo leen désigné woon ah, comme ni ñu leen ko waxee ci live bu mujj bi nga xam ne defoon nañ ko ak yéen nee nañ leen finalement ki nga xam ne mooy doyen des juges euh, Omar Maham Diallo décidé na ni dafay déglu ñi nga xam ne ñoom la ko Ousmane ko joxoon muy révolution bu extraordinaire parce que comme ni ma leen ko waxee dañuy jóge léegi ci li nga xam ne mooy euh, uniquement à charge léegi dafay enquêter à charge et à décharge maanaam loo xam ne arrangé na Adji Sarr seet nañ ko ñi nga xam ne Adji Sarr nee na ñooy ay seedeem gis nañ leen déglu nañ leen léegi ñi nga xam ne bokkunu gis-gis ak Adji Sarr ñoom la doyen des juges di déglu semaine yi démb waxoon naa leen ki nga xam ne mooy capitaine Touré moo jiitu moom la déglu woon bu jógee ci capitaine Touré dafay euh, jubal tey Euh, ki nga xam ne mooy MC Niass mooy sëriñ bi nga xam ne mooy sëriñu Adji Raby Sarr bu nu jógee ci kooku suba incha allah wala alxamis bokk ki nga xam ne mooy madame Tall moom la doyen des juges di déglu ma fàttali leen ni euh, xale jigéen ñi nga xam ne nekkoon nañu ci salon Ndeye Khady ñoom ñëpp pratiquement déglu nañ leen te du ci kenn koo xam ne àdduna ànd ak li nga xam ne moom la Adji Raby Sarr wax ñëpp weddi nañ ko euh, wax yi bon yi nga xam ne mu ngi koy wax ci live am ne loolu lu ñuy def comme euh, genre massage ñëpp ne nañ ko loolu amut léegi nag ki nga xam ne mooy euh, capitaine Touré dem na wuy ji ki nga xam ne mooy Maham Diallo capitaine Touré bëri na ci li nga xam ne maa ngi koy dégg ci ay ay commentaire nit ñi di di ko wax li ci wóor mooy defu fa sax ah, lu mat ah, ñaar fukki minutes dafa ñëw maa xam Diallo mu xamal ko ni moom en tant que officier euh, bu gendarmerie c'est dans le cadre de son travail la ñu xëy indil ko li nga xam ne mooy cow Adji Sarr ah, li mu ci wax nag naka la ko naka la gérer dossier bi xamal na ko ni wax na lépp ci li nga xam ne mooy euh, wax na lépp fee nga xam ne mooy émission bu euh, émission bu Ahmed Aydara mu ne ko lépp li nga xam ne wax naa ko ci Ahmed dara moo di déclaration bi nga xam ne moo ma engagé ci li ma def ci cadre dossier Adji Sarr léegi nag par courtoisie mais aussi parce que bu ko doyen di bu ko doyen des juges convoqué ne ko mu ñëw moom dafa war a ñëw pour mu gisee ak moom mais li mu war a wax yëpp wax na ko bu mu pare mooy rien de nouveau lu ñu extrapolé ne capitaine Touré wax na lii wax na lee mooy li mu waxoon ca PV euh, bi coow li commencé woon keroog bu mu daje ak Adji Sarr mooy lan mooy xamaloon na jamono Adji Sarr mais démb waxu ko devant le doyen des juges ne na ko lépp li nga xam ne moom waxoon na ko loolu la maintenir changé wu ci dara te audition bi gën a explicite audition bi gën a leer mooy li mu waxante ak Ahmed dara te li mu waxante ak Ahmed dara moo di lan bu fekkee ne nit ñi ñu ngi koy fàttaliku dafa ne Adji Sarr bi mu ñëwee daf ko ne woon est-ce que man li may def nii sama patron du ko yëg parce que bëgguma sama patron yëg ko sama patron waxtu wi mu ngi fële hôpital euh, Fann ci liiram mu leen di won ni lu lu lu extraordinaire ku jóg di accuser nit li nga xam ne mooy viol ngay accuser nit loo xam ne mën na ci dem ngiru dundam ci kaso bi yow ngay ragal est-ce que sa patron Ndeye yi dina ko yëg parce que bugguloo sa patron yëg ko te bugguloo sa patron mu am problème loolu la ki nga xam ne mooy euh, Adji Sarr waxoon keroog ak capitaine Touré. boole ci gannaaw bi mu ko loon benn carte d'identité boo xam ne vingt ans la ci am dafa gëmloo capitaine Touré ne ko déedéet man 17 ans laa am parce que lu mu ci jublu woon mooy ñu viser lu nuy wax euh, comment on appelle viol sur mineur loolu lañ ci viser woon mais capitaine Touré rappelé woon na wax yooyu nga xam ne euh, fàttali na ko ki nga xam ne mooy doyen des juges euh, keroog bu mu dojee ak. comment il s'appelle Ahmed Aydara wax na fa lépp donc loolu mu waxoon ci Ahmed Aydara moom la wax ni moom lay maintenir amu ci lenn lu mu indi amu ci leneen loo xam ne daf ko ci yokk euh, amul beneen déclaration boo xam ne def na ko donc capitaine Touré apparemment indiwul leneen lu bees lu dul li nga xam ne euh, mooy quelques mots yi ma leen waxoon man en tant que officier de police judiciaire def naa sama liggéey dans le cadre de li nga xam ne fekk na ma section de recherche lépp li nga xam ne nag mooy déclaration bu ma la mën a indil lu bees wala lu màgget mooy li nga xam ne waxoon naa ko ak ay journalistes notamment waxante woon naa ko ak Ahmed dara changé wu ma ci dara awma leneen encore loo xam ne mën naa ko apporter ci lii te xamal ko ni bi mu sentiree nii sécurité am moom menacé na te kenn jugu si def na li nga xam ne mooy devoir am pare na ci donc capitaine Touré amul lu bees amul changement amul déclaration extraordinaire boo xam ne mën nañu ko xaar wala mën nañu ko seet ci li nga xam ne capitaine bi def na ko léegi nag ki nga xam ne nag euh, moo moo moo moo ki nga xam ne nag moom la moo indi lu bees moo indi révolution ki nga xam ne pratiquement moo lañ naan euh, moo moo moo moo wasaare euh, moo tax tane bi wasaare mooy ki nga xam ne mooy MC ñas Kumba Abdallah euh, moom tey bi mu yeggee ci doyen bureau doyen de juges ñetti audio la yóbbu def leen ci clé USB dem jox ko juge bi xamal ko ni ki nga xam ne euh, mooy Adji Sarr ci boppam moom moo ko avoué ne ko lii ni complot la jël na ci ñetti audio jox ko doyen des juges premier audio bi Sénégal yëpp dégg ngeen ko mooy keroog bi Adji tëbe tëbee balcon euh, waa kër ñàkk jàmm fay ay nit ñu perdu ñu taxawoon di saaga ka wax lu nekk audio boobu feeñoon won leen ni dëgg-dëgg Adji Sarr dafa tëboon balcon boole ci it wone Mamour Diallo buy discuter ak Adji Sarr naan ko lu ñu waxantewoon nag lu ñu tegoon audio boobu Sénégal yëpp dégg nañ ko bokk na ci ñetti audio yi nga xam ne ki nga xam ne mooy MC jox na ko doyen des juges beneen bi muy yeneen ñaari audio yooyu waxtaan la conversation boo xam ne euh, discussion la diggante euh, MC Niass ak ki nga xam ne mooy Adji Sarr woo naka ñaari yoon comme sëriñ ak taalibeem keroog bi ñu Sénégal yëpp di wax ni Adji Sarr du ba mu ne moom taalibe euh, comment on appelle taalibe euh, Niassène la ñu bëri jóg na nañu ñu ne ko doo taalibe ñaseen parce que li ngay def taalibe Niassène du ko def keroog MC bu ngeen di fàttaliku mu ngi mu ngi mu ngi fële nga xamoon mooy euh, Nigéria dafa xëy bu gaaw mu def dafa xëy bu gaaw mu def li nga xam ne mooy vidéo xamal leen ni. aji saar mi de taalibeem la mais boobu moom ak aji saar amuñu contact direct boobu la lijjanti li nga xam ne mooy numéro aji saar mu wax ak moom aji saar mu xamal ko taalibe bàyyi du fen mu xamal ko ni taalibe bàyyi du indi loo xam ne fitna la waaye mu xamal ko ni en tant que jullit mu xamal ko ni am na responsabilité ci li nga xam ne mooy nit ñi dee te bu dee complot rek la na ci génn boobu la Adji Sarr ne ko danga ma tiital man dama tiit sax fi ma nekk nii mu daal di ko commencé yebbeeku wax ko ni li complot la wax ko ni dañ ma ci dugaloon ne dañ may jox xaalis wax ko ni diw ak diw ñoo mu ci dugal wax ko ni nii ak nii la demee d'ailleurs la preuve mooy ojo boobu mu ko yónnee mooy ojo bi mu Mamour Diallo di confessé boole ci Adji Sarr am na fu mu yegg foo xam ne waxoon naa leen ko il y presque un an ci léegi nee naa leen Adji Sarr bi muy waxante ak euh, MC Niass dafa télé dafa dafa dafa dafa dafa enregistré MC Niass MC Niass tamit mu ngi koy enregistré donc ñoom ñaar ñëpp ñu ngi enregistré wante parce que boobu waa kër ñàkk jàmm ñu yoroon Adji Sarr Adji Sarr xamal na leen ay wala soupçonné nañu Adji Sarr ni dafay na léegi pour xool ndax sëriñam bu muy waxal dina génne information wala du génne information ñu décider ni dañ koy enregistrer bu ngeen delloo ci sama vidéo yàggee di ngeen dégg foofu kàddu googu mais boobu la aji Sarr xëy di ko tuddal tudd yu bare bare bare ay waxi ñaaw yoo xam ne man duma ko yëkkati sama kàddu moom la sëriñ Baara Ndiaye di leen wax ni comme maître El Hadj Diouf nee na Adji Sarr lépp lu mu wax dëgg la na fexe bu audio yi génne li aji Sarr wax mu dëgg la. mais léegi-léegi damay avertir sénégalais yi ne leen euh, audio yooyu musiba naaru laay la waxi Adji Sarr wax waxi musiba naaru laay la Adji Sarr ay kilifa la fu tudd Adji Sarr ay mag la fu tudd Adji Sarr ay autorité la fu tudd teg ci ñoom kaddu yu ñaaw yoo xam ne ne moom sikk na ko ak ñoom man Touré de duma ko wax te duma leen tuddal ay tuur dama leen di bàyyil ak ñii nga xam ne dinañ jël responsabilité publier audio boobu ngeen déglul ko seen bopp bu fekkee ne dina am mais li nga xam ne nag MC Niass li des ci loxoom ci lu mu xam tegal na ko mu leer nañ tegal ko jox doyen des juges malgré que dafa enregistré Adji Sarr de manière clandestine donc gis ngeen ni même bu fekkee nañ ne enregistré doomi aadama dafa interdit dañ ko tere mais enregistrer nit dans le sens que da nga bëgg a éclairer la lanterne pour éviter crime wala dénoncer un crime ou dénoncer un délit dafay mel ni loo xam ne dafay dafay dafay dafay dafay dafay dafay euh, dafay nekk légal parce que sa permet d'éventrer un complot kii nga xam ne mooy MC subir na façon yi pression bu ne pour audio bi bu mu ko teg mais Sénégal dafa toll foo xam ne du ab milliard bu ñu lay dig du ab poste bu nu lay dig du ab kër bu ñu lay dig mooy tax ndaxte lu luñ la mënti jox bu fekkee ne Sénégal takk na sa looloo du ci mucc donc pour ñu mucc pour jàmm am il faut que ñu xool li nga xam ne mooy suñu travail ba mel ñu wax ko loolu la exemple boobu la tey MC Niass joxe alors que MC Niass rien ne l'implique dans ce dossier MC Niass n'est pas acteur MC Niass témoin la bu jóg ne man may témoin maa ngi ak li lëndëm am na lu ko leeral ndaxte aveu la boo xam ne mu ngi jóge ci gémmiñu borom ci Adji Sarr la jógee tey li nga xam ne ñun ñu ngi ko doon wax pendant des années léegi mat deux ans li nga xam ne ñu ngi ko doon seet Adji Sarr ci boppam ndax ragal mbugal bi nga xam ne sunu borom subhaanahu wa taala nag ko teg te MC Niass wax ko ko fàttali xamal ko li nga xam ne koo xam ne participer na ci loo xam ne complot bu rey ay nit lii moo lay xaar yomal xiyaama Adji Sarr ci boppam ubbi na gémmiñam wax ko ni lii complot la nii ak nii ak nii ak nii la demee donc ki nga xam ne mooy Maham Diallo mënutul wax je ne savais pas ki nga xam ne mooy euh, le juge maaxam Diallo am na tey plus délément plus de témoignages et même des aveux yu wone ni lii complot la li ko wone ni kii nga xam ne mooy euh, Mamour Diallo moo ko tëgg léegi keroog waxoon naa leen kaawu ki nga xam ne mooy euh, docteur Ousseynou Gaye Alfousseynou gay tamit wax naa leen keroog bi docteur bi njëkk a consulté Adji ci ëllëg si ki nga xam ne mooy euh, Pape Samba soow muy Gabi moo ko njëkk a pour que mu defaral leen li nga xam ne mooy certificat médical bu wonee li nekk ci Adji Sarr mu bañ Mamour Diallo na à plusieurs reprises les preuves de tout ça existent pour wone l'intérêt pour wone l'acharnement pour wone xeex bi nga xam ne Mamour Diallo xeex na ko pour que ñu jox Adji Sarr certificat médical bi nga xam ne am nañ ko ñun du duñu ay suicidaire duñu ay jaay sa rouleau comme ni koy waxee mënuñu taxaw fii di tuumaal Mamour Diallo depuis si njalbeen fekk nag amuñu fuñ ko teg dañu am fu nu teg yëf yi bu leen fàtte ni Mamour Diallo premier sénégalais bi nga xam ne moo ne loru na ci yëfu aji Sarr bi Mamour Diallo la parce que keroog bi ñuy wax yëf yi coow li commencé le euh, début mars xaw ma lan mu njëkk a taal euh, mu njëkk a kër bu tàkk muy këram fële ci Louga benn ci ay mbokkam benn xale bu góor def na benn témoignage boo xam ne danañ ci dellu mu ne Mamour Diallo woo na ma ne ma saagal Ousmane Sonko. complot Adji Sarr yow yaa ko tëgg yooyu yëpp ñu ngi fi tey Adji Sarr ci boppam mu ubbi gémmiñam pour wax leen ni Mamour Diallo moo ma yónni Mamour Diallo moo ma defloo lii moo ma defloo lii moo ma defloo donc MC Niass ñetti audio yooyu la dajale mu dem jox ko doyen des juges def ko ci clé USB premier ojo bi yéen ñëpp dégg ngeen ko Sénégal yëpp dégg nañ ko deuxième audio nag boobu moom beneen affaire la man de Touré du ma ko tudd te buggu bugguma ko sax déggati parce que ay kilifa ba ci ay kilifa yi diine moom la Adji Sarr tuddu ne dañ koy seeti moom la Adji Sarr tuddu wax ca mu cay wax seen kaw man duma si jaar waaw léegi on a tous les éléments comme ni ma leen ko waxee depuis si njalbeen amuñu dara ba dara booloo jeex loo xam ne dafay incriminer Ousmane Sonko mais am nañu tout loo xam ne dafay orienté vers le complot de dafay incriminer ki nga xam ne mooy Mamour Diallo léegi nag gis naa beneen beneen booy bu bu bu bu am fit euh, booy Momo Cissé fan yee ci ginnaaw am na lu mu waxoon ba naan Adji Sarr am na lu mu téye boo gisee muy dem ne day dem procès am na lu mu téye am na lu mu téye man gis naa ko fan yii ñu génn matul deux semaines wax naa loolu seen web la xam fan laa waxatee rappeler les inepties de Momo Cissé mu woona ma téléphone di ma ne noo waxuma loolu dañ ma wax loolu li ma waxut dama ne boo gisee Adji Sarr di langaamu am na peut lu mu gis mu ne loolu la wax mais gis ngeen koo depuis barki démb ba xam naa peut-être gisee na ak waa kër ñàkk jàmm dellu siwaat na encore nee na ay vidéo la yoo xam ne moom moo ko gis ba lu mu teg ca la mu ca teg digganteem la ak boroom digganteem la mbokk conscience am digganteem la ak ñi mu incriminé loolu duñ ci bari wax mais. Euh, bëgg ngeen nag comme sénégalais yi euh, euh, ñëpp dañ kumpa kaay seetaan la bëgg foog naa ni euh, audio boobu ne pour le moment pour le moment au niveau de Kéwoulo buñ ko buñ ko amoo am it mënuñu ko teg te bëgguñu ko teg parce que audio la boo xam ne bu teggi bu amul benn kersa audio la boo xam ne ay kilifa yu ñu naw ci réew mi waxuma la kilifa yi politique mais ba ci ay kilifa yi diine. moom la gune gi ubbi gémmiñam teg si ñoom wax yoo xam ne nopp bu ko dégg rek fatu waaw donc en loolu moo génn ci ñaari audition yi capitaine Touré yàggul bureau doyen des juges waxu fa lenn lu dul la mu musa wax nee na ko li ma wax yëpp mooy li ma waxanteeg Ahmed Aidara euh, loolu laay maintenir dans la cadre de sama liggéey laa ko defoon mënu naa sax bañu ñëw mais par courtoisie ñëw naa wuy si la lii mooy sama déclaration pare naa ci maintenir naa lépp li nga xam ne waxoon naa ko ci émission Ahmed Aïdara donc émission Ahmed Aïdara bi mu def capitaine Touré ak émission yi mu def ak Pape Alé ku ci bëgg a xam lan la wax ci bureau doyen des juges wala lan la bëgg junj audio vidéo yooyu lañuy jël ñu dugal ko ci dossier bi MC nag Kumba Abdallah mu indi lu bees moom moo indi ñetti audio yi jël leen tegal ko ci taabalu euh, procureur euh, du moins sa doyen des juges xamal ko ni man sama yoon nekku ci mais en tant que jullit mënuma gis fitna bu mel nii di ñëw sama réew ma croiser les bras ne dama koy noppee moo tax jox naa la tous les éléments léegi nag éléments yooyu ne ko xamal ko ni proposé nañ ko lu ne pour éléments yi bañ a génn mais tey éléments yaa ngi nii li neex ci yëf yi mooy doyen des juges bu jotee ci audio yi MC bañoon na ko jox ku ne déglu na ko dégluloo na ko ay quelques personnes mais tey suba copie bi euh, ñi nga xam ne loi moo ko wax ñi nga xam ne mooy avocat Ousmane Sonko lépp loo xam ne preuve la que que mooy témoin Ousmane Sonko teg ko wala témoin Adji Sarr teg ko avocats yi am nañ ci accès Ousmane Sonko am na ci accès donc dinañu xam lépp lu waay wax wala lépp lu waay def. am na beneen beneen précision bi ma leen bëggoon a parce que keroog féelu woon naa sama xarit Pape Ndiaye bu Walfadjri ne nañ ma dafa nekkoon ci benn plateau mu ni leen bu procès naree am forcément il faut que nit ki mu dem fanaan yi en détention ma ni leen loolu la loi prévoir mais li ma ci xamut parce que du lépp la ñuy xam euh, euh, ci diggante bi dafa am évolution de la loi tax na léegi xanaa juge bi mooy apprécier mooy wax ni na dem force mais du obligation pour nit ki mu dem fanaani ci kaso bi donc nit ki mën nañu considérer ni mën na jógee këram mu dem tribunal pour jugement c'est pas forcément ñu dugal ko ci kaso bi leneen li ma xam ne bëggoon naa leen ko indil euh, avant ñu avant ñu avant ñoo pare yëf yi mooy euh, suba wala gannaaw suba en tout cas ki nga xam ne mooy madame euh, madame Tall mi nga xam ne moo doon liggéeyloo Adji Sarr te Adji Sarr waxoon ko ni xam nga Adji Sarr barki démb dañ ko laaj mu ne musul wax dafa ëpp alors que am na benn benn interview bi ñu ko doon laaj mu ne Ndeye Khady moom moo ne naa yàq ëmb bi te wax na ki nga xam ne mooy Coulibaly euh, euh, muy jëkkëru euh, Ibrahima Coulibaly di jëkkëru Ndeye Khady mu ne ko damaa ëmb ba woon ko test de grossesse du moins carton bi la ko won Ndeye Khady ne nekkoon naka bàyyi foofu mu daal di bàyyi carton bu vide yóbbu li nga xam ne mooy éprouvette bi parce que xam na ni bu <laughs> Ndeye Khady gisoon kii boobu dana xam ne kii ëmbul dafay fen mais loolu la bàyyi mu daw léegi nee na leen musuma wax dafa ëmb mais alors que demoon na ci kële di madame taal madame taal mooy femme bi nekk Liberté 6 extension te mu doon liggéey ci salon am newoon na ko damaa ëmb te Ousmane Sonko moom moo ëmbal kooku ne kan mooy Ousmane Sonko mu ne ko Ousmane Sonko politicien bi. kooku ne ko aji saar bàyyil sa dof-dof lu yi lii ngay wax dafa ëpp mu ne ko dëgg la damaa ëmb ba dama ba dama euh, damaa ëmb ba sama tànt sax dem na sama tànt dem na seeti laqaat ñi xaw ma laqaat ñi la wax Ousmane Sonko ba seen waa kër d'accord na ni moo ma ëmbal aji saar boobu nag moo dellu si waat tey mu ne leen masuma ëmb Maître El Hadji Diouf ne leen aji saar masuta ëmb or on a tous dégg nañu tous Adji Sarr taxaw ay yooni yooni yooni yoonu wax ni dafa ëmb léegi nag Maram Tall dina ñëw li muy li muy liñ koy laaj mooy par rapport déclaration yi mu defoon keroog ci sama confrère pap Alé Niang ñu ngi koy ñaanal jàmm pour la petite histoire Pape Alé démb journaliste yi gis ngeen leen dañu dem fii nga xam ne mooy euh, assemblée nationale keroog bi Amadou Ba taxoon foofu def déclaration de politique générale nu yuuxu fa libéré Pape Alé libéré pap Alé libéré Pape Alé xam naa nag yëf yooyu coup d'éclat boobu ñu def neexul waa kër ñàkk jàmm xëy na nanu ki nga xam ne euh, mooy Pape Alé Niang ñu dem jëlee ko ci hôpital bi mu nekk ci clinique bi mu nekk delloo ko par force fi nga xam ne mooy prison bu taan naqar boobu nag tax na pap Alé xamal nañu Sénégal léegi bëggatul kenn rendre ko visite bëggatul kenn rendre ko visite it grève am dàqalu ko tey mooy neuf jours mu ngi def grève de la faim dàqalu ko te it bu ñëwee di ko jël di ko yóbbu hôpital dootu ko dootu ko nangoti donc il préférera mu dee moo koy gënal ñu koy yóbbu fële nga xam ne mooy euh, fële nga xam ne mooy mooy mooy mooy euh, clinique donc de plus en plus journalistes yi ñu ngi alerte ñu ngi woote dañuy dem sax bay tàllal loxo di ñaan euh, comment il s'appelle sàll ngaari lam tooro buur gédé ne ko nag moo fi gën moo gën ci ñun moo gën a rafet ñëpp te mooy suñu président ñu ngi lay tàllal suñu loxo ne la yërmande dawal ko ci ki nga xam ne mooy suñu mbokk bi mooy Pape Alé Niang nga libéré ko njaboot gi soxla nañ ko rédaction soxla na ko te it Sénégal soxla nu am ku mel ni Pape Alé Niang muy jàkkaarloo ak Sénégal wax leen li nga xam ne mooy xalaatam ak gis-gisam ak loo xam ne découvrir na ko dans le cadre de son travail de journaliste d' investigation moo ko sénégalais donc détention bi détention boo xam ne mënul la lu dul indil la ay noon du la indil mukk plus de personnes pour que ñu ànd ak yow muy lu jëm ci Pape Alé bu ñu dellu soité encore ci ki nga xam ne mooy madame Tall madame Tall fexewoon na madame Tall waxoon na madame Tall xotti na tànk tànku sërëm pour éviter loo Adji Sarr lii dem na sax ba ne ko dama koy récupérer pour Adji saar mu toog mu génn ci lii mais Adji saar mooy loolu Euh, gis ngeen tontu ya mu tontu après madame wax na ko lu ne mais en gros moo ci des mais lu jëm ci les éléments les aveux ak euh, lan la capitaine Touré wax am ngeen lépp ak li nga xam ne docteur Alfousseynou Gaye wax na ko parce que Alfousseynou Gaye docteur bi mu jàkkaarloo ak euh, juge bi Maham Diallo xamal na ko ni ñu ngi may fitnaal ñu ngi may bundu ñu ngi may yàqal. mais balaa loolu di jot dañ ma indil xaalis bu bari pour corrompre ma balaa loolu di jot ki nga xam ne mooy xaritu euh, Alfousseynou gay muy le l'avocat euh, Gabi Sow Pape Samba Sow di Gabi moo ko dugal ci lii moo ko proposé lii ak lii ak lii mais moom bañ na ko parce que moom kenn du ko dugal ci li nga xam ne xamu ko donc léegi euh, Pape Alé Niang dëgg la ñëpp conseillé nañ ko mais nee na décision am la jël famille am jabaram euh, mbokkam yi ñun confrères yi ñëpp xamal nañ ko ni d'ailleurs que moom dafa am problème de santé wax na nañu pour mu arrêter grève de la faim bi mais nee na dina jël bakkanam def ko sarax jox ko euh, ñi nga xam ne mooy waa kër ñàkk jàmm bu fekkee ne mooy tax euh, ñu indi jàmm ci senegal donc suba incha allah ki nga xam ne mooy madame taal moo fi des comme ni MC defee noonu la que docteur Alfousseynou Gaye di def jël tous ces éléments teg ko ci loxol doyen des juges léegi lan moo fi des parce que mënatuñu continuer te duñu déglu Mamour Diallo mënatuñu continuer te duñu déglu joor Diagne man sama intime conviction mooy wax naa leen ko yàgg naa leen ko wax te teg te tey te tey lépp teg ko ci loo xam ne euh, enquête moo ñu ko moo ñu ko may mooy dañuy dem ci non lii mooy li ngay wax amut léegi nag bu amulee am na loo xam ne am na ko am nañu ay éléments yu accusé Mamour Diallo mais amuñu rek ay éléments dañu am ay preuves yu wane ni Mamour Diallo moo wax lii moo dox lii moo def lii léegi nag lan moo ci lan moo ci xew bu fekkee ne jël nañu tous les éléments yu incriminer Mamour Diallo tegal ko ci table juge bi xanaa juge bi ñemewul gëmm takk bët yi ne suma yónneeku ci lii donc bu fekkee ne am na ñu xalaatoon ni les quatorze décédés les quatorze tués du mois de mars deux mille vingt et dara du ci génn ñu xalaat ni suite ak complot yi ca am ñëpp dara du ci génn mën nañu commencer am yaakaar parce que au delà de au delà des quatorze bu nu fàtte ni euh, am na lu lu mat douze ba treize personnes ñoo xam ne ñu ngi ci kaso yi. sama xel toujours dafay dem ci euh, Badiane Nadine ja boo xam ne mennum jigéen boo xam ne dans l'histoire du Sénégal ñu accusé ko de terrorisme dugal ko ci dossier farce spéciale boobu ak léegi mu ngi ci kaso yi euh, Cissé mi nga xam ne tailleur la nekk handicapé moom it ñu dugal ko ne ko terroriste la boobu léegi mu ngi ci kaso yàlla rek a xam kañ la ñuy génn mais sama xel dafay dem tamit ci Karim Xurum Xaq boo xam ne saa yoo ko seetee mu ne la tout va bien ci ñi ko seeti du jooy du du du wax dara alors que Karim ñëpp xam nañu santé bu fragile la am professeur Cheikh Oumar Diagne ay ay ay ñoo xam ne seen présence le fait que ñu dugal leen ci kaso bi di leen yóbbu instruction kenn mënu ko justifier du ma fàtte it ñoom Papito ak euh, Outmane Diagne sama rakk bi boo xam ne wax dëgg yàlla Outmane kenn xamu ko ci lenn lu dul ci militantisme mais ñu ngi nii découvrir nañu. milieu carcéral à énormément de gens Ousmane Diagne du ma fàtte it euh, Fadilou Keita barki démb ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu leen fii mais xel yaa ngi ci ñëpp xel yaa ngi ci ñëpp wax dëgg yàlla feneen nag mooy beneen dossier bi nga xam ne sénégalais intéressé leen mooy kaw gendarme ñaari gendarme euh, ñaari militaires yi disparaître mooy Didier yi ak euh, ki nga xam ne mooy Fulbert Sambou te ñu retrouver ko di ñaan suñu borom mu Euh, mu dañ na ñu daje ak yërmande suñu borom kaw Didier Badji ba léegi amuñ ci benn information ñu bëri na ñu lu tax du ngeen ko seet lu tax duñ ko wax mais da ngeen bëgg ñu jàkkaarloo ak yenn wax leen ne leen amuñu information wala da bëgg ñu jox leen information parce que bu fekkee na ñu bëgg ñu jox leen information enquête comme ni ma leen ko waxee saa su ne du ma toog di inventé du ñu toog di wax dañuy seet ba pare ñu doog wax enquête constatation la d'abord constatation mooy loo xool ak audition constatation ñun mënuñu ko def parce que fi ñu wax ni foofu la ñu réeree foofu la ñu leen gisee pour la dernière fois ci biir camp militaire la zone militaire la accès interdite la gis ngeen mënam commissariat de police wala brigade de gendarmerie dañu tere ko fa filmer wala journaliste bu dugg foofu di enquête sans autorisation à plus forte raison benn camp militaire ngeen da nga fay dem seeti gis ngeen barki démb euh, ñaari euh, ñaari jeune yu Pastef ñoo xam ne dañu doon def seen live ci mbedd bi nee nañu ci seen vidéo bi prison bi génn na ci ñaar ñooñu ñu ngi tey ci kaso bi beneen chose bi tax mu ñu def enquête bi mooy la famille de ces personnes la ñoom dañu décider ne duñ ci wax ki nga xam ne ñoom ñoo bokk ak seen nit ñoom ñi nga xam ne ñoo la war a jox ay information yoo xam ne moom ngay seet moom ngay analyser ñoom la nañu duñu wax ak yow bëgguñu ngeen xam dara seen dossier mais bu boobaa lan ngeen di lan ngeen di mën a def lu dul taxaw di supposer di wax ni kee ko war a rey kee ko war a lekk kee ko war a def ñun duñ def loolu lu ñu mënut a prouver lu ñu mënut a lamb gis lu ñu mënut a enquête duñ ko wax loolu moo tax muy difficulté ci dossier wu Didier Badji ak Fulbert Sambou mais amuñu benn sens interdit ci loo xam ne am nañu firnde am na nañu yàqin ni lu ñuy wax dëgg la dara duñ ci mën a retenir donc en gros mbokk yi foofu lañ toll léegi nag am na beneen euh, beneen caaxaankat wala ñaari caaxaankat yoo xam ne convoqué nañ leen euh, euh, wala boog ab plainte tegu na seen ndodd xamuñu nag ndaat nañ leen woow wala duñ leen woow mooy Ahmed Suzanne Camara mi nga xam ne ubbi na gémmiñam wax fii li nga xam ne la ñëpp Sénégal yëpp dégg te man ñemewuma delluwaat ci kàddu yooyu parce que ça me donne de la fris des des frissons ak ki nga xam ne mooy won nañ ma beneen beneen beneen beneen yambar bu tudd baa Diakhaté ci bi biñ ma woon nee na man dañ ma dama yor xaalis boo xam ne Ousmane ko moom moo ko jox ma dem jënd Adji Sarr génne ko dem ak moom bitim réew du ma sax perte sama temps di commenter loolu nee nag naa ko porte plainte bu dul dëgg man baal naa ko àq ndax jaxate la sant lépp lu ma wax baal naa ko àq parce que lu tey la commencé yàgg naa wax ni man MFDC la wax na ma lu ne man baal naa ko àq ci xol bu sedd guy du man ak moom lu journaliste na fait pas l'actualité journaliste commente et traite l'actualité donc man na du yàgg mukk ba ma fekk leen ci seen terrain loolu neex nañ ma ko wax du ma leen dellu kaddu gu ñaaw duma ma dellu ci seen ci seen ci seen terrain euh, maa ngi euh, yemale fii live bi parce que dama bëggoon mu noonu lu gàtt rek def leen restitution capitaine Touré nee na bëggoon a xam li mu wax ak lan la ci dund mooy lépp lu mu waxante ak Ahmed Aïdara mooy xale bu jigéen bi waxul dëgg xale bu jigéen bi hésitante na xale bu jigéen bi waxoon naa leen le 5 bëggoon na retiré plainte bi xale bu jigéen bi pour koo xam ne ne nga violé nañ la mu ngi doon ragal ndax patron am du ko yëg mooy xale bu jigéen bi. boole ci capitaine Touré moom nee na bi mu sentiree nii il n'était pas en sécurité moo tax mu jël décision def lu muy def mais moom pare na ci ku ci bëgg a xam li mu def nga dem déglu vidéo boobu loolu la wax doyen des juges kee nga xam ne nag mooy euh, Kumba Niass Kumba Abdallah mooy MC moom nag moo indi révolution moo indi lu bees moo indi loo xam ne tey tax na ku ku doon ku doon tiit it tey war nga mën a tëdd nelaw parce que indi na audio yi nga xam ne moom la waxoon mooy ñetti audio yi Adji saar di wax naan ko diw ma yónnee diw ma ma proposé léegi lii yëpp ay complot la fen la Ousmane Sonko xamuma te nee na ko ñu mën ne woon est-ce que Ousmane Sonko dafay ñëw li Adji saar wax de loolu dama lañ koy sàcc wax leen est-ce que Ousmane Sonko dafay ñëw ñu ne ko waaw ñu ne ko est-ce que mun nga fexe nga jëlal ñu mën ñu yoom Adji mooy wax mu ne bi ñu ko ñooñu waxee mu mer mu ne bàyyi leen li ngeen may wax yéen est-ce que bu dee seen seen seen rakk la wala seen doom la di ngeen ko sant loolu mu ne loolu la leen wax léegi nag moom mi waxoon loolu nan la ñëwee mu tourné ba mu joué euh, rôle bi mu joué loolu mooy la grande question combien on lui a proposé mais avec Adji Sarr il faut toujours aller avec euh, Adji Sarr lu mu la wax tey suba da lay wax le contraire lu mu la ne tey dafa bleu suba dina la ne dafa orange donc ak moom nañu tey mais en gros euh, amu ci beneen leneen loo xam ne xew na fa luñ leen mën a wax capitaine Touré confirmé yi nga xam ne mooy euh, MC Niass confirmé en mettant les sur la table suba it ki nga xam ne mooy euh, Maram moom it dina ñëw ñu ne laaj ko lan la xam ci Adji Sarr lan la ko wax ak. est-ce que violé na Adji Sarr suite parce que Adji Sarr bu leen fàtte ni euh, élément central bi dafa ne woon dafay génn ak Ousmane Sonko loolu la wax madame Tall madame Tall xam ne kii day déliré mu jógee ne ko damaa ëmb Ousmane Sonko mu ëmbal madame Tall xam ne day déliré mu ne tantaam dem na sax ba lijjanti loolu ak Sonko waa kër Sonko ñoom d'accord nañu madame Tall nee na bi ma laajee tantaam tantaam nee na ma aji mii day fen parce que man xaw ma sax kuy Ousmane Sonko donc en gros euh, euh, tani bi léegi mu wasaare parce que dañuy dem. vers la fin de la l'affaire léegi nag su nu amulee benn élément bu ñuy opposé Ousmane ko est-ce que juge bi dina jël risque day dem jugement yàlla rek a xam mais xamal leen ni euh, bu ñu dem jugement que nit ki mu dem fanaani tribunal mu dem fanaani prison du obligatoire ce sera à l'appréciation du juge mais nag wax dëgg yàlla tey jii xam naa ni Mamour Diallo bu doon nelaw ay di quelque di am ay insomnie tey guddi gi yëpp dina xoole parce que musuloon xalaat ni Adji joxe na yii yëpp parce que yii mu joxe tey yii mu joxe tey loolu classé na dossier bi bu yàgg bu doon beneen dëkk la dëkk bu normal aji Sarr tey euh, Mamour Diallo tey bu ñu fanaan seen kër bu dee dëkk bu normal la ojo yii kii génne bu boobaa ñoom du ñu fanaan tey seen kër mais nag mu ngi noonu euh, nañu xool fu wanante di mujjee ak bëtam lu ñu leen ñaanal jàmm ñu leen di ñaanal rek mooy suñu borom subhanahu wa taala mu sàmm leen sàmm njaboot gi euh, bu mu yow làq leen fu yàq yeggul mu làq leen fu waa kër ñàkk jàmm yeggul yal na seen jàmm yàgg yal na jàmm Sénégal yàgg jërëjëf